diwaan bu Touba commerçant yi ca marché Ocass mer loolu ba mu jaral leen xëy tëj seeni place ginaaw bu waa patant wàccee ci seen kaw ci anam yu leen neexul. waaw li ko waral mooy euh, patente bi daf fi ñëw commencé depuis démb bi mu ñëwee annoncé wuñ ñu wala bu fekkee nee nañ annoncé nañ euh, délégué de marché bi aussi tamit waxu ko waa marché bi. amul kenn ku nekk ci marché bi koo xamante ni yëg nga ni patente yi dañoo war a ñëw jour tel Touba ci marché Ocass bi ñu ñëwee aussi tamit ñun ay nit ñu responsable lañ ba ñu ñoo fay dañoo bëgg a fay mais nag nañ ko teg ci aw yoon parce que li nga xamante ne moo traversé Sénégal ñëpp gis nañ ko ak Covid bi ak yi fi xew yëpp te ñun ay nit ñoo xamante ne ñu organiser lañ ñu responsable bi Covid bi amee dañu jël sax suñu soutien dem yóbbu ko ci état bi kon du ñu ay nit ñoo xamante ne ñuy bañ naan la ay du ñu fay lañ dañoo bëgg fay mais dañoo bëgg ñu teg ñu ci aw yoon.

bon ñuy leen ba ñu ñu fay ndax dañoo jugee ci Covid 19 man nga ni chaque mois ñun liggéeyuñu ko ba ñu ñu fay mais nañu menteer euh, li ñu fayoon daaw kon xam kon bu ñu ñoo fay euh, am ci ñoom ñu ni duñu ko menteer duñu ñu fayu vingt mille du ñu fayu trente mille lu ñu bind loolu la ngeen di fay commerçant yëpp taxaw ni loolu du fi amee ñu lànk loolu duñ ko def wala boog ñu tëj suñu porte bitig yi ba keroog ñuy waxtaan. ñu ñu ko fay mais ci anam ya nga koy a xam mooy mënoo euh, may nit ki daaw mu la vingt mille quarante mille cent nga bëgg ñëw bëgg ko triplé ci état boo xam si ñëpp xam ni période Covid la nekk année deux mille dix neuf ba léegi kenn liggéeyul dara président jël ay ndimbalam jox ko secteur yëpp sauf sauf ñëw ko xanaa ñëw euh, a fay loolu lañ mënul. dañoo ñëw yokk ko saa ñu jégal ñu ko ki doon vingt mille fay ko ne ko cinquante mille. ki doon fay ko cinquante mille fay na fayoo ko doon cent mille muy lu métti loolu. effectivement majorité parti bi yëpp ci leen d' accord parce que dafa am nañu fay démb par erreur ndax yëguñu ko woon position Aziz mais tey bi ñu ko yëgee ñoom ñëpp àndandoo ci même même même kàddu gi mooy mooy te sa place toog xaar. ginnaaw bu leen maire bu Touba Abdou Lahad Ka waxee ne patente mën na bañ a am ren ndax jafe-jafe yi nga xamante ne jànkonte nañ ko ci wàllu mbas mi. ndax maire sax defoon na déclaration bi màggalee ba noppi waxoon ni kat ren patente amut. ndax loolu it bàyyi woon ci xel jàppoon ne kon dañu koo jégal ndax gis nañ ni dimbali nañ secteur yëpp

te ñii am na ñoo xam ne ay néew doole yoo xam ne ñoo xam ne 10 000 lañu fayoon ñi fayoon 15 000 ku fayoon 15 000 wala 10 000 te la nga yoroon ci ku je génn ñu bëgg la leen kat comme am na euh, euh, fay la fayoon loolu moo waral jafe-jafe ñi ngi doon fay ay 10 000 francs ñenn ñi ay 15 000 20 000 francs ñu di leen augmenter di leen fayeeku lu leen neex di jël force de l'ordre yi di xeexi seen doole na da fay boo mënta fay dañ lay tëj loolu moo jaaduwut su fekkee ne délégué bi bi nga xamante ne moom moo waroon a ñëw taxaw def lii ñuy def taxaw suñu place koo xamante ni yaa ngi bëgg a teg waa marché bi lu jaaduwul mu wax taxaw ne carrément lii nga bëgg a teg waa marché bi jaaduwul alors que loolu gisuñu ko. li ñu proposé dañu leen ah ñun ne lii de diis na ay na yéwén nañ leen dajee fii ñu waxtaan xam nga ñun bañ ñu waxtaan ñoom ñu ni euh, bi ñuy départ woowoon nañ délégué bi waaye délégué bi moom wax dëgg yàlla bi mu ñëwee it lam ñu wax dafa wuuteeg ñee la ñu wax. la muy wax fee bu ñëwee fi day wuuteeg li muy wax fii ci suuf da naan euh, bu leen fay lii bu demee fee daan lu ngeen fay lu ngeen wax ñu def loolu. ñu ngi si suñ li ñuy war mooy tëj toog suñ place xaar xaar xaaroon kilifa wax ñu jëfee ko mais fa mais doo dem ci kilifa naan ko lii fi xew mu naan la may ma ba ma am temps recevoir la fii la ñu toog du dem ci kenn xalaatuñ ko fii la ñu toog kuy soxla woo ñu. am na yéene fay lañ fayoon daaw buñ ñu ko mënta may ñu fay lañ fayoon daaw waxuñu duñ fay ndax impôt. kooku kooku droit la boo xam ne ki da ko war a fay mais nag bu la teg loo mënul ndax ku ne xam ne jabar ji neexu ba ñu waxtaan rek même nii nii nii bu ñu woowee waxtaan kilifa yi dem ñu waxtaan parce que ñun tëj bi du intérêt ci ñun ñàkk fay bi du intérêt ci parce que doo liggéey ci ab dëkk ni du fay ay droit loolu moom xalaatuñu ko doo fi wun li ñuy wax mooy ñoom li ñu proposé dañu leen ah ñun de lii la diis na ay la yéwén nañ leen dajee fii ñu waxtaan. li nga xamante ne nag moo fi am mooy. li nga xamante ni jàll na démb ndax démb loolu lañ def daanaka arnaque la ndax dañu jékki-jékki yu fi lu mat ay dix commission mooy buñ dalee ci kaw nit ñi luñ gaaw njëkkante luñ dajale xaalis moo muy noonu ñun noonu lañ ko gisee. léegi nag la reste moom nañ fexe ba teg ko ci aw yoon moo waral bi ñu génnee fii bëgg a fayeekuwaat nit ñi lu jaaduwut nit ñi bañ lii moo waral ñu tej place yi. nga patente da ngay ñëw estimer place bi. da ngay ñëw estimer place bi doo ko doo ko mën a fayee ko mais doo ñëw rek wax ni kii daf ma neex. cinquante mille laa koy fayeeku mais kii neexuma soixante quinze mille laa koy fayeeku wala cent mille te am na fi gis nañ ko am nañ ay preuve parce que ñoom dem nañ ba nga xam dañuy cumuler sax ñaari place pour di leen fayeeku ñaari place dañ leen di cumuler di leen fayeeku te patente wër te demee noonu patente place bu ci nekk dafa am numéro immatriculation boo koy fayeeku da ngaa war a ñëw fayeeku ko defal ko numéro place am defal ko defal ko patente bu ëllëgatee bu ñëwaatee déwén nga mën a présenter sa sa sa sa patente wax ni sama patente ngi nii mais boo jëlee ñaari place cumulé leen benn benn benn benn patente mais bu subaa boo fi ñëwaatee di contrôler sax mënatoo contrôler lii te benn place boo xamante ni identifié nañ ko def ci numéro place wala dara kon arnaque dong lañ ko jàppee mooy fexe ba encaissé suñu xaalis ci loo xam tegewut ci aw yoon ma leen digal lu mën a luñu lu ñu war waxtaane ko ndax ki nga xam ne mooy suñu kilifa muy maire bi moom la ñu war a woo moom wax ak ñoom ni kat comme yëf yi la demee bañ ñoo fay nga fay ko suñ ko mënta moom nañ ko bàyyi fa mu nekkoon daal loolu la ñu waaye dañoo waxoon ne avant loolu dañuy ci marché bi ñu toog ñoom wax li kenn ku ne li yëgaluñu la a nga ko def ñun ñi war a jaay ñu tëj suñu place toog di leen xaar loolu jafe-jafe la ndax ñoom itam defuñu seen liggéey ñun itam loolu waxtaan am ginnaaw bu commerçant yi waxee seeni jafe-jafe ubbil nañ suñuy bunt waa mairie ngir ay leeral